bon d'abord man euh, su ma amee benn message bu may lancer c'est par rapport à la jeunesse mooy nañu xam ne que actuellement Sénégal dafa nekk à la du chemin fi jamono toll incha allah d'ici quelque temps dinañ commencer exploiter suñu pétrole ndax ku xam pétrole xam ne dafa nekk loo xam ne couteau à double tranchant la maanaam ni mu mënee développer réew aussi noonu la ko mënee sombrer ci kaw. donc actuellement période bi ñu toll nii li ñu gën a soxla si li ñu jàpp ñun mooy la stabilité cest dëkk bi dafa soxla dal nekk ci jàmm. Mhm. parce que tey bu fekkee stabilité amul rien ne peut se faire ñun ñi nekk ci domaine finance et tout xam nañ ne bépp projet booy teg analyse bi ñu njëkk xool c'est l'analyse politique. maanaam bu fekkee crise politique dafa am ci dëkk boobu les investisseurs ne vont pas investir leur argent. effectivement donc fii ñu tollu nii maanaam Sénégal mun na fi jaaree baax ba faaw donc nañu bañ a sombrer. comme mën na fi jaaree mën na fi jaaree aussi sombrer ba faaw. c'est ça bon on l'espère avec Amadou Ba. Ah, bon léegi voilà on l'espère avec le président Amadou Ba Sénégal mën na fi jaaree baax.